li may wax dama koy fàttali encore une fois am na sax ay nit yoo xam ne amuñu woon carte électeur xam nga wax naa leen ko fi man leen mhm. man dama laaj candidat yi ñu ne ma da ngay ñëw nga joxe sa carte d'identité dina ñu wax yi jox la fiche jox la numéro kese waaw <laughs> waaw léegi ayib dafe bu ñëwee ne Ousmane Sonko kan moo xam kuy Ousmane Sonko DG xamul kuñ condamné kuñ condamné nga ne ko du ma la jox xëy na dafa jot léegi la la preuve si diggante ba. Hmm. am na ñu ñuy jox ba ñu jàll parrainage amuñu double nationalité. waaw am na fi. am na si ñoo xam ni bi ñu demee jàlluñu parrainage xam la moo tax jàlluñu parrainage ndekete amuñu woon sax carte électeur. waaw nekkuñu woon sax sur le fichier. Hmm. waaw kon kon yàquñu suñu xaalis. yow DG xam nga loolu. Hmm. na waa ji nekk sénégalais mooy na andi carte d'identité boo andee carte d'identité moom wala mandataire jox ko fiche.

xam nga ñoom dañ laaj kon ana say parrainage hmm. mais dañu ne rek benn période si at bi ñu bëgg a nekk président yëpp dem leen joxe seen caution hmm. waaye yow tamit waaye Ousmane Sonko bi bu ñëwee doo jël te loolu lañ njëkk def dañoo jël gars woo leen présidence ñu woowaat gars yi mu ne ko kaay jësee duñ ko jël yooyu yëpp c'est des erreurs c'est des bêtises parce que affaire par par la la ma doon la ma doon la ma doon dénoncé démb ba tey dama koy dénoncé moo tax man koo gis kenn ku gëm bindal vaar di reede mooy seen affaire yooyu ñuy def noonu noonu monte ko noonu di reeta kenn na ko génne kenn na ko génne kenn changé wu ma yootaa si samay principe ak si li ma doon wax leen na kañ mun wax da nga ñaaw da nii da nga Non, Niao. Ouais, ouais, ouais, ouais, devant l'encre, ouais. on te reconnaît plus. On me reconnaît plus. Pourquoi on me reconnaît plus Man, la ma wax laa wax man kañ boo ma nee dof nag ma d' accord ku ne dof nga nag d' na xam nga lu hmm. moi je suis l'un des rares sénégalais bu ñëpp jàpp ni projet bu ba aboutir tax mu mu aboutir ba projet ba taxaw. Hmm. ñuy jël nit ñi di récompensé ma demaat bien un côté des c'est les mêmes mots que ma répété hmm. ne da éternel recommencement mais il n'a pas compris que ni man man ba may def def pour récompense te defu parce que man militant un nekk militant te mo nekk militant ndax do politicien waaw oui mooy un deuxièmement man ñii dañ maa mënul diriger xam nga man wax naa leen ko plusieurs fois. ah lu tax diriger nag. non Ousmane Sonko daf maa mun diriger Ousmane Sonko li ma xam si politique da koo xam. ah bon waaw yow tam da nga may fonto kii dugg 2014 man ma dugg 1999 ci politique. ci ci politique 93. ah def li may def. waaye itam Ousmane Sonko damay moromam ci politique la ma ci xam da koo mun. mais Sonko benn nag nangu naa ko. waaw moom ëpp bayre bayre mom ëpp popularité. popularité waaw dëgg la. mom la gaay gëna gëm ko man. ak man ma dakk politique. waaw dégg déedéet. ci bok ana ah, politique. xam nga la nga la nga xamul dama ko mësa wax ben ki hmm. la radio la plus écoutée n'est pas forcément la meilleure radio ah bon ah bien sûr. dafa radio mbalax. 24 heures sur 24. gars yi dañ lay dëgg lu lay kay. waaw est-ce que c'est la meilleure radio non non. Hmm. ci ci ci continue bi rek. waaw non dama ne. <laughs> déggoo lu ma la. <laughs> waaw déggoo lu ma la. rajo boo xamante joxe di joxe dara. non dama ne organe. Mhm. organe yi def ay buzz nii. Ah ñoom la ñuy gën a seetaan kii kii. ci rajo yi def information. Ah, def exactement def voilà loolu allo àdduna moo demee noonu. waaw waaw mais c'est pas forcément la meilleure de. moo tax jël sans limite di ko yóbbu palais. interview avec le président de la République c'est une injure à la profession. mais pourtant Ndeye Arame Touré une question pertinente. waaye damay je ne parle pas de Ndeye Arame Touré. je parle sans limite bon donc. sans limite je dama ne sans limite. oui yóbbu ko parler de la République si ben ay affaire choix la ak hmm. critère nga jël sans limite je ko parler, c'est une injure à notre profession. man je ne parle pas de Ndeye Arame et de xawma kan ak kan. dama ne du dëgg du yoon. du tax du du ci notoriété. waaw notoriété. du ci visibilité. du ci visibilité. ah du ci sérieux ah kon léegi ba noonu lañ ko tànnee. léegi lan moo tax nga ne sans limite. mais xam nga dañoo ne groupe de presse. groupe de presse.